ne ah macha allah dëkk ndax yàlla dafa def ñu doon Carrefour booy dem Tamba fi ngay jaar booy dem Gambie fi ngay jaar booy dem ngay jaar kon ñu ngi ci xolu Sénégal kon lépp lu président di dem euh, voilà ñun dañ ci war a war a wane exemple euh, vraiment boo xam ne dañu ciy ràññee bu baax a baax a baax kon euh, ñu ngi lay wax ne ñun it xale yi nga xam ne ñooy liggéey ak ñun ñu leen mobiliser bu baax a baax a ah, lii nga wax ñu jàppale ci aussi gouverneur ndax moo fi ne mhm. voilà bu ko defee bu état jàppee fii citoyens yi japp ci wet euh bu ko défé aussi euh, euh, Kaolack dana gëna am melokaan bo xamné wu rafet lay doon euh ñu aussi compter ci mag ñi mag ñi aussi surtout mag ñi nga xamné ñoy liggéey euh wala apprenti yi travailleurs yi ah, ñom it ngeen soññi len ci bu baax a baax a baax waaye daal monsieur le ministre mën nañ la wax né fekk nga fi dal ay jeunes ak i kilifa yo xamné yi sa cadeau yi dal euh bëgg nañ ko transformer en action bu defee boo fi jaaratee. voilà di saytu. nga fekk fi beneen xar-xaru kanam. Mm-hmm. jërëjëf.